alors dernière loolu mooy texte toute dernière question. président Macky Sall euh, bu demee élection toogaat dinañu waxtaanee waxu succession bu demul la question de sa succession se se se se, se pose euh, si seen biir parti bi commencé ngeen di positionné wu pour l'héritage euh, du président Macky am na ay candidats yu fés yu feeñ euh, am na candidats yoo xam ne. njort nañu ne ñoom la waaye am na ci candidat yoo xam ne euh, feeñuñu waaye bëgg nañu affaire bi yow ci ban pôle nga bokk. man pôle Macky Sall laa bokk. c'est-à-dire. Macky laa àndal je veux que le successeur de Macky Sall soit Macky Sall. bu Macky Sall et je ne travaille que sur cette hypothèse là. nga ne ma Sall. et la politique la politique. lan mooy si Macky Sall arrête la. bu président génnee ci politique bi. xam man dëgg yow dëgg début d'émission je vous ai dit et ça avec tous les risques que je prends je ne me vois pas d'avenir politique en dehors du président Macky je suis clair. c'est-à-dire. fàcce ko. lu la neex nga traduire ko wax ko ci wolof. dama ne la Maimouna li ma wax dafa leer et ci loolu laa nekk man je suis pas du genre man politique dama ko def par devoir. moi je ne suis pas à la recherche de de noms ou de trucs moi je ne cherche que le développement de ce pays et je me bats tous les jours pour ce pays et je pense être aujourd'hui que le président je pense ah, que le président Marissa Macky Sall moo gën a taxaw ci ñi taxaw ci Sénégal yëpp waxuñu moom rek moo ko mën ci ñi taxaw Sénégal moo ci gën a taxaw pour àggali ñu fu ñu bëgg. mais sa destin politique yow. ci moom laa ko lié parce que simplement man maa ko décidé. man maa décidé en un moment précis de ma vie politique d'aller de reconnaître en lui le leader et celui qui a l'orientation de ma vie politique je l'assume donc yow bu Macky Sall bàyyi woon politique yow nga bàyyi politique du tubaab laa lakk dama ne man gisuma suma aw politique en dehors de lui merci beaucoup kon ci loolu laa nekk ba tey man du ma du ma nekk ko nga xam ne day jouer à gauche et à droite merci te man débat bi ngay wax ci sa bopp la succession man gisuma ko fenn débat bi ci sa man naa ngi biir parti bi di dund ci biir parti bi di dem ci instance parti bi gisuma ko fen li ngay wax ne ay succession yooyu man gisuma ko fen yenn journalistes vous avez l'avantage de vouloir déstabiliser certaines coalitions ou déstabiliser déstabiliser certaines organisations. mais fii ngay mbëkk sa bopp. ma ne mois d'août dinañ xam nga débat bi. Ah, ci sama xam nga xam nga bu fi jouer la divinité. ma ne bu fi jouer xam na avant mois d'août. ma mois d'août xëy na avant mois ma ne fii ak mois d'août dinañ xam ndax. c'est un débat superficiel ou c'est un débat profond. mais dans tous les cas xam nga man. Ah. lépp lu ma lié wax naa la ko et quel que soit ce qui va se passer ëllëg je ne me reprocherai pas moi de ne m'être pas battu pour la cause et pour la conviction ba nga xam ne moom moom laa gëm. merci beaucoup.